maa ngi leen di siyaare bu baax te fas yéene indi ay leeral yoo xam ni leeral yoo xam ne la daar ji ñoo ma santoon liggéey boo xam ni liggéeyub daara ji la kon mbooloo bu lay liggéeyloo boo demee ba nga xam ni dafa laaj ay leeral nag war ngaa xam ni moom moo woon liggéey boobu danga ko war a leeral mbooloo mi li may leeral nag di ko wax ginnaaw ba ma ko séeréele suñu borom séeréel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy séeréel jëmm ji di sañ Tuubaa fas yéene ma cee yokk xaraf di ko teg sama bakkan buy am sax wàññi lay gën a doon ngir rafetal waaye duma ci yokk mukk xaraf ndax ñun ñii ñépp lu muy xumb xumb ak li nekk nii bu ëllëgee man képp la na suñu borom di sama jëf lu ma ci wax ngir lu neex nit dinaa ko lijjante ak moom kenn ci àdduna jaralu ma may sos wala may yokk lu dëgg samay kàddu kon lii may wax nii la demee ginnaaw bi nga xamante ni man jóge naa Espagne ndax li may njëkk a wax samay mooy kàddu yu leeral waruma koo def ci kanam sëñ Maxtaar Jenn mii ndax moo doon sama jëwriñ ca conservatoire xas isbitar daa xuddoos bin ñu boole waaye mooy sama jëwriñ mi ngi nii toog xam na ba xam nangu naa ko nangu ko bu loolu rombee moom sax du ma ko tudd Moussa Mbengue mii képp mooy conserv jëwriñ conservatoire Hizbut Tarqiyyah Khoudoss juróom-ñaari at te nekkul sax secteur conservatoire mi ngi nii toog ba xam mës naa koo del delloo genn kàddu wala genn ndugal lu toll ni xaraf ndax li may sant li liggéeyam liggéeyam Sëñ Tuubaa la bu ci jariñ di am maa koy jariñoo kon daf maa dama ko xamul leer ma nañ bi ñu boolee nga xam ni danoo jóge danoo jib màggal safar gi laay commencé sëñ Yuusu boole ma ci ñi mu tànn ci ñi jiite conservatoire muy ñeent ñi di si Ablaye jóg sëñ Maxtaar Jenn topp ci sëñ Mamadou Jaxaane topp ci mu toftal ma ci bu ñu boolee ñun ñeent ñu liggéey liggéey conservatoire di liggéey bu sensible nag ndax ku ne xam ne ne Hizbut Tarqiyyah Khouloss moom xasida la am bañ nañ ko ba ñoom gaja gi ñii sax bu ñu demoon ci kilifa nii xisbu tarixa daara xul seen jóge daan ah barkeelu leen xamul ba xam ay jàngkat lañ jàpp na ne rek ku fa jóge rek ab jàngkat xasida nga muy adresse nag boo xam ne bu jën bu jërë jan sant Sëñ Tuubaa la kon bin ñu boolee te safar gi teru sëñ Ablaye Diop daf maa contacté ñuy déggante di nas ay programme waajal màggal gi bis bu yàlla sàkk kuréel gay dem ñu koy xam di ko informé sëñ Matar fekk ko yaramu sutante ma taxaw liggéey boobu di informe kuréel jëwriñu kuréel yi ñu informer seen kuréel kuréel yi di ci teew kem ñoom ñoom nañ cay teewee ndax dañu boole ab liggéey waruñoo sàggan mukk ñu ni ci gën a doon jàmbar kon bu yokkul rek war wàññeeku ci ñun bi ko bi bi sare safar gi jàllee ñu ànd ko màggal ànd ko gàmmu ànd ko poroxaan ànd ko tiib mbul nga xam ne man keroog laa fay doog dem bi ñu fay dem sëñ Matar mii dafa tawat bi ma ko ko waxee moom rus na ñu dem te ñoom moom dikkut nga xam ne dañ koo jëli fanaan fa jàng toogal fa bu guddi jàngaat kenn mànkewul ci ñun ndax sam nawle it bu ñu leen boole ab liggéey muy boole gu yees daa war a yokk maanaam ñu noo jëm baaraam ni yéen kat nangam ak nangam ak nangam ñoom Abdoulaye Mbuub ñi ñoom Moussa Mbe ñëpp Moustapha ñëpp ñëw muy mbul googu suñu kuréel yi dañ leen a nas ci gën whatsapp responsable kuréel yi ñu ngi fiy toog bis bu ñu jàpp ñu teel leen ko wax taxawu leen ba nu dem tànk demuñu suñu xel suñu xel dal ba ngan nga jeex ñu jub kasu rajab bi ñu jubee kasu rajab daara ji waa daara ji xamal ma ne faaw nga informé conservatoire bi fi ndax ñun ñoo ñoo ko daa def ñun kese mais ginnaaw doon ñoo boolee faa doon koy ànd ma woo Abdoulaye Diop sëñ bi mun naa ma ne ko Kazu bi dafa jege si te doon ko war a ànd man nag dama buggut mu mel ni tey ñun ñoo ayee loolu li muy firi mooy na nga jiite woon mbul jiitoo ko màggal jiitoo ko gàmmu dama bëgg nga ñëw lii taxaw ci kanam jiitu ko ñu ànd ko yow li may wax Juxaane dégg na ko Mbaalo dégg na ko Malick Diouf dégg na ko maanaam ñu nekk conservateur ñëpp ci benn buum lañ nekk di ci wax di ci tënk ma ne ko duma ci bind xaraf tànk ñëwoo sinon day mel ni yéen a aye woon kër ñu tey ñun ñoo ayee kon ñëwal ñu won la ni ñu ko daa organiser nga jiite ko mu ne dinaa la woo toog diir bu yàgg woo ma ma waat ko mun ne man dama ñun danoo baaxoowut di jëfe loo xam ne amuñ ci ndigal man ma man it man it teg teewul maa ngi doon am pression boo xam ne mu ngi doon jóge ci daara ji ngir ñun dañu doon ñun it dañoo amoon habitude di teel a jot programme bi. bi mu yàggee ñu ñu may sollicité ah Souleymane ana programme euh, kii Kazu Rajab bi bu ñu demee ba xam li ko waral ñu ne ma def leen programme bi yéen. mais teewul muñ leen ba mu des juróomi fan la may doog ko woo diggante bi it lu ma xam ak lu ma mënoon ci relation buy defar jaar naa ci suuf di fa dox ngir ñoom ngir ñoom ñu ñëw wallahi lazim bi ñu ñëwee dama ne ko mi ngi noonu say loxo moom moo ñëw indi fiche programme def ñu def programme yi ñu xool kuréel yi ñëw presté mu ñëw moom jëmmam nag wax dëgg yàlla ànd ko ñun ba fajar fa mu toog jógu fa ba nu ñaan bi loolu rombee daaru moxti daa di ñëw fekk moom mi ngi woon ci ay eh, tawat bi daaru moxti gi jegesee Pape Assane Diouf ni ma ci groupe bi sëñ Ablaye yaram dafa xaw a te doon na rafet yow Souleymane nga dem teew fa comme bu fa Ablaye doon teew muy loo xam ne dëgg la ndax nit it noonu ngeen di ànde te moom it Ablaye événement yi fi jàll yëpp mooy toog ca gannaaw ba événement ba jeex ma daal di jóg ma it xam ne li ma wax kàddu yu dëgg la jóge Ndakaaru jël sama oto dem ba Daaru Moxti cinq heures ànd ko Cheikh sàmb ba fajar ban ñaan ma doog a ñibbiwaat kon ñoo ànd diggante boobu yëpp ba Daaru Moxti bi koor gi jegesee nga xam ne sëñ daam moom am na lu mu ci risme lu bari nga xamante ni koor gi des na ay fan ñu def ab réunion boo xam ni doon doon wax nu ñuy waajale koor gi ci lañ wax ñoom yàlla dogal na nag keroog dama am malade teewuma ci réunion bi ñu wax ne ci ci ci ci ci whatsapp bi sëñ Youssou kat dafa wax ni fukki kuréel ñoo jàng ci koor gi ñoom nag juróom-benn lan daa am ñu nan indi ñun indi na ñoom ñu nan indi ñeent ñeent yi sax ñoom ñoo ko tànnal daal di wax fukki yi bi nga xamante ni fekkoo ma réunion boobu te bi ñu paree résumé résumé nañ ko ci groupe bi ma xam ni du ak nite teewoo ab réunion donte am nga ngant lu wér ngay dugg ci groupe di joxe sa xalaat ak di soppi te ñoom ñëpp tënku nañ ci loolu ma bind ni rafetlu naa ko li may wax nag li fële preuve yëpp mi ngi sama téléphone waaye damaa yëkkati sama téléphone woo Pape Assane ni ko Pape assan ñeent ñi nga xam ne ñoo féete ci ñun dama sàkk dama bëgg ngeen yokk ci kenn ndax kuréel un sacré cœur bi ngeen ngeen ngeen ngeen génnee dafa am niveau mu ne ma sa ñuusu moo sàkku mu yem ci dix ma ne kon bu la ñu tànnal te li ma jàppoon mu ne ma kuréel un sacré wax nañ ni amul niveau ba ñuy jàng kër Cheikh Bass fële ki doon njàng ma dafa xawoon a des ma ne ko niveau moom maa la xam ci njàng te bu fekkente ni dañ cee bëgg a dox ak maandu na sëñ Ablaye jóg commission bi jóg ñu ñëw toog ci ginnaaw kuréel gi ak yeneen kuréel yi nga xam ñu ngi si daara ji te am niveau ñu déglu leen même leen di éliminer muy preuve boo xam ne man dama koy ànd ak yéen muy aw lay aw layu mat sëkk waaye toog rek nit ki kii kii kii du ñëw du jàng te ku jóge ci kuréel googu ñëw maris nga dugal ci kuréel goo xam ne day jàng koor man ko loolu day yàq xam xel ndax am na ñoo jóge ci kuréel goo nga xam ngeen wax ne amul niveau te dugal ngeen leen ci kuréel goo xam ne jàng ci koor gi mu ne ma non loolu niveau individuel la mën naa bañ a bokk man ko niveau individuel boobu nga xam nag man maa la gën a xam individuel yi nekk Maris fee Sacré Cœur kon ñu fexe ba def def loolu biñ jibee koor gi nga xam juróom benn euh, euh, semaine moo ci des ñu wax ni sëñ Yuusu kat dafa wax ni nan dakkal bépp activité bu jëm ci conservatoire ba réunion dimanche bi mujj ci koor gi passé nga xam dana arrêté ci saa si rek bépp réunion boo xam ni dafa jëmoon ci waajal koor gi ci wàllu kuréel yi bi bi loolu rombee ci ci biir loolu sax am na lu ci xew ndax am na loo xam ne loolu nag moom samay samay mbir la sama jëmi bopp ak kenn ci ñoom mais loolu du mbiru mbooloo mi am na lu ci xew ba ma génn ca groupe ba waaye li nga xam ne moo moo concerne mbooloo mi moom bi nu bi bi nu waxee ni dañuy arrêté activités yi ba ba ba dimanche boobu jàllee dañoo supprimer groupe bi supprimer ban demee ba ni suba la ñuy wóor premier fan premier jour bi bi ci guddi gi amuñu information ci njàng mi ñu xëy ba nee suba la sëñ Matar mi woo ma ni ma Souleymane wax na ni ñun ñoo koy tijji kay kuréel 15 15 yi waaw man ko ñun man naa man ko ah sëñ bi ñun dañuy répété suba man yëg guma loolu. mun ah woo nañ ma wax ma ko de fan ngeen mbaa di nga téere ñëw ma ne ko incha allah ñu bëri jàpp nañ ni maa koy inf maa ko informé ci diggante boobu wallahi lazim moo mun ma ñoom woo nañ ma ni yéen da ngeen a jàpp répétition di te te ngeen war a pressé quinze 15 yee war a jàng man ko ah ba nu ñëw bi ñu ñëwee fii leen toog di répété bi ñu répété ba ci digg bi Matar fàttali ko waat gaa yi toogoon ci kuréel gi Mor Seck ni ko ñun ñi ñëpp ci 15 15 lañ bokk kan moo ci yëg ne dañuy jàng ñu kenn ni ñu njëguñu ko moom mu commencé jaaxle danoo daaneel rek bàyyi may seen dugg si ni ko sëñ Matar yow la ñuy xaar boobu nag ci la jaaxle moom ndax man it xawma yan 15 15 la ñuy wax ndekete am nañ beneen 15 15 boo xam ne sos nañ ko te ñun yëguñu ko waaw bi ñu bi ñu fa jógee ci lool ba loolu rombee samedi ba ca topp man ah ba tey jàpp naa ne loolu kuréel gu yees la waaye dàqut ñun ñu jàng après. ndax li fi jaar lépp ñoo ko ànd te donte doon déggoo déggoo amagul sax kuréel gi yoonam nekku ci mën naa ko ne di presté donte ñun ay invité la waroon doon sax nekk ci beneen daayira waroon ñoo mën a invité ngir mu gën a jur ak dal jamono jooju waaye dañoo commencé de woo kuréel gi ba samedi bi nga xam ne moo moo njëkkaat ci koor gi ma jóge Dakar ànd ak sëñ Mbàkke ak daam mi ak Abdoulaye Mbuub ak Moussa Mbeng ñëw di teewlu si njàng mi bi mu bi njàng mi ànd ak sëñ Matar bu ñu dugg see rek lan ñuy wax ñaaree moo nga dugg fee ñaar nit ay une heure bi ñu waxee ñaaree moo dugg si ñaar ñaar nit ñu ne ñu kon daam ànd ak sëñ ngeen dugg maan ànd ak ñu ne ñamataar ñu dem ca gannaaw foofu foofu ca gannaaw ndax lépp benn la bi foofu ab diir am ku ñëw ci sécurité bi ne kaay kaa wuyu ma daal bu ñu ko mu gis ma Souleymane nañ dem man xam naa ne su ma jógee man woowuñu ma ma forcé waaye ginnaaw nit ñi ngi ñu commencé xool. ak taxawaayu mataar bi ak force bi mën naa jug topp ko ba ci biti rek bi ma génnee ba ci biti ma déekoonu ko sa waay a ne ma ko demal waa ji bu mu gisee ma ko wax la ko wax ni waxuñu waxuñu kii yow la ñu wax ndax daa dem moom ba mu fa jógee la ma la wax ne nan dem ci Yuusu moom mi ngi nii toog du ma ko ndax man ab xaritoo du ko jaawale mukk sama diggante sama borom moom noonu lay doxe nan dem ci seen Yuusu man ko ma tax jar na ko mënuma nañ dem sëñ Yuusu ànd ba ci biir daara ji sëñ Mbàkke ngi toog sëñ Daam Jóg mi ngi toog Ablaye Mbuub Bas Jenn Baye Mor Bintaloo moom mënuma nañ dem sëñ Yuusu ñu taal oto sëñ Mbàkke ne kon Souleymane àndal ak Baye Mor Binta ak Bas Jenn ak Daam ak Mataan ngeen dem kon ko mënul la bëgg biñ demee ñu laaj ko lan moo tax jànguñu ndax boobu ñoom commencé nañoo wax ni am nañ ci ñoom ñu doon wax ni ñun kat dañoo bañ a jàngal sëriñ bi ba mu commencé tas si réseaux sociaux yi sëñ bi ku ànd ak yow depuis ban la booleeg léegi mbul màggal gàmm daaru moxti kazu rajab ba koor gi dikk nga xam ne sax ci ci ci ci ci maam da nga sax moo dàq ndax sëñ Muntaxa day toog nii ñu ñun nangu mun jàngal sëñ bi di commencé message médiatiser muy lu diis tuuma loo xam ne kenn mënut a génn di daan da nga ci tontu muy lu diis ñu dem ba nga xamante ni ban demee mag sëñ Matar mi ak ñoom ñu dem ba ci sëñ Yuusu ci guddi gi ñu ne ko ñun kat danañuy dégg nii da dafa am ñu wax ne ñun nangu ñoo jàngal sëriñ bi ñu laaj ñu laaj ba xam loolu fu mu jógee mun a ah ñun di de waxuñu ko ñu ne ko lan kon lan moo tax ñun jànguñu wala boog pook boolewuñ ci programme bi loolu nag euh, du pour du pour du pour ñëw bëgg a jàng moo ñu indi waaye ginnaaw kuréel goo xam ne mënoo koo sapee wala nga teg ko suuf te doo am bruit dañ dañuy laaj te tuuma yi bëri na teg leen suñu loxo dara du force dañuy jàng. mu ni Mourtala Seye ci boppam wax ni engagement individuel mooy tax a jàng ma ne ko maanaam mënu ma sóobu wallahi azim bu ko déggee dina xam ne nii la demee man amul nag ku yàlla bind ku tax ku ma ragal koo xam dina tax may fen mën naa maslaha am naa kerse waaye ragal nag moom sama askan amu ci ndax dëgg képp nekk ci jar naa am fit waxuma la ak ànd ak Sëñ Tuubaa dama cee dox nag dox personnel goo xam sama jëmmi bopp laa jël di paas sama xaalis bopp di ci dox di ci ñu ma ciy toroxal ñenn ñi naan dafa bëgg a jàng te wallaahi la xasim boobu lii la laa doon si jëm sauvé ndax daje bii Sëñ Tuubaa boole ñoom ñoom am naa tawfeex nag am lu mu ci lu jiitu lii di ci dox ba dajale ay sama kër dafa ni man sëñ sëñ ma ciy liggéeyloo ndekete loolu yi laa gis kon bi demee ba mu wax loolu sëñ Yuusu ni Mataar loo wax Matar ne ko da ngaa yilif ñëpp nekk suñu kanam ñëpp nga war a àndal. mu ne kon may leen ma ma jooyanti sëñ Mourtala ak sëñ Mout Thiam damaa bëgg ngeen liggéey ci feek ñaari fan ñu xool solution. bi nu xëyee Mourtala Seye woo ma ni ma sant nañ leen si teew jé jéegooy dem bi macha allah jëwriñ bëgg na sant nañ ci jéegooy dem bi waaye wowal Modou Dioukhane ma woo ko téléphone. mënuma gars yi sant na leen ci teewaay beeg yëpp léegi lan lan lan lan ngeen bëggoon da ngeen bëgg a jàng nii la ma ko waxee moom xam na ni yëpp moo ko bëgg a fenal bu ma doon fenit du ma ko fenal moom mais nag mbooloo mi lin ma dénk ma koy leeral dama koy waxee ni mu demee ndax mbooloo mi ma ko dénk du ma ci du ma ci maslaha du ma ci naafiq man ko du bëgg a jàng dana faa woon euh, wax ko répété lépp mënuma dinaa la woo yàlla dogal déggante wuñu ñaari fan ca gannaaw la ma mët caam woo man nag li ma mën a seer ci mët caam mooy ku amoon intention la ñu jàng dafa dem ba àgg ci ni xam naa kuréel gi sax moment bii mën naa am bunt waaye bunt bi li ci gën a gaaw mooy nga wut foofu juróomi nit ngeen ñëw ñu dugal leen ci kuréel sélection lu muy diis diis diis diis dama ko nangu fas yéene dem reyanteeg gaa yi nag waxtaan ak ñëpp woo suñ mbàkke suñ mbàkke loolu mënut a ñàkk loolu baax na ñu dajale daara ja tànn ay jëm kasami ci la bokk Matar Jenn man Mor Seck Moustapha Ndiaye Baye Mour Bintaloo ba ni juróom-ñaari nit bi ñu jógee daara ji ba tënk ko dama ni dama ni daam lii bala cee seetaan dugg sax duñ téléphone nañ jël suñuy oto yi dem ba ci mot càmm boobu ay daanaka 11 heures na maa ànd man Saliou Ndiaye mais ak daam Ndiouk ndax ñu wax ñëpp ñu ngi ni toog 11 ci guddi bi ñu waxtaanee ak sëñ mot càmm ba mu ni waaye yow boo xëyee nag na nga na nga dem na nga yow yow moom na nga jiitu bureau jëwriñ ma ne mbaa loolu dafa dafa doon dara ci njàng mi mun ma déedéet déedéet loolu gàllankooru ci dara waaye ci mbiru conservatoire ma ne ko ah, kon baax na kon am mbiru conservatoire sax naa ci mën a ànd ak sama noonu baax na bi nu xëyee yàlla dogal ak ak ak ak yoon wi ni muy demee ñu agsi fa une heure fekk jëwriñ tamit dem ndax moom midi la ma waxoon ñu agsi fa une heure fekk jëwriñ dem bi ma woowee mët ci am téléphone mënu ma xaaral tuuti ma waat la diir mu woo ma ni ma boo nañ lekk Ablaye Diop woo ko moo woo Ablaye Diop jotuma ko ma waat ko jotuma ko ma woo Modou Thiam ne ko numéro mu ne ma xaaral ba numéro ma wax ko ko mu ne boobu la de xaaral ko nit sut mu waat ma ne ma jot naa ko waat ko ma woo ko jotuma ko ma ne ko Modou mu naa ma ko waxal sëñ Ablaye mu jo wax jox la nga wax ma loolu doy na ma sëkk mu coupé woo woo woowaat ma ne ma ablaay kat nee na ña ko ubbi woon 33 ya ñooy jàng kuréel gi dafa mat ma ne ko yow de defoon naa sa responsabilité ak li mu ñaari fan yi ci ginnaaw ak li mu daj nga wax ma lii xaw na laa koy wax ñii ak li mu nar a yàq ci ginnaaw ndax dara gën a metti ngay wax ay nit ñun la yaa ngi dox lu baax mais yow li nga xol bi nga cam am ak yéen ji nga am ñee amuñu ko ci wala boog am nañu ci ñoom ñoo xam ne dañuy yàq ñu dem ba ca fin ba loolu am muy lu metti ndax dama jàpp ni ndigal suñu taxaa gi kenn koo xam ne war naa jëf lu koy galgal wala koy yàq wallahi alazim war tam ci ñun ndax sëñ bi moo wax ni xool naa ko ba xam ne mën naa nekk kon bu fekkee dañuy jëf loo xam ne day wane ne mënut a nekk mais si ñun la ñu ngi leen indil ndam loo xam ne at mënuñu ko yóbbu at mënuñu ko yóbbu téléphone ko teg bi ma mët càmm waxee loolu ma wax ko wax ko gars yi yéen ñëpp defe naa dégg ngeen audio yooyu ak image yooyu ñu daal dellu Dakar. teewut yenn saa nit woo ma ne ñoom neen du am na ñoo xam ci ñoom neen du ngeen jàng du ngeen fa jàng mais li mu ci mën dox personnel yëpp dox naa ko ci loolu foofu la mujjee waxoon naa leen waxoon naa leen ni leen bu ngeen bu ñu jàngut ci ba mu jàll dina yàq la bari ndax xis bu taraxlaa xulus kuréel gi du kuréel goo xam ne dana ko doon ci ànd ni rek ak bakkan suñ tubaa moo maam am loo xam ne sañu ma ci xuus dafa maa jege waaye day kuréel boo xam ne kuréel bi suñ tubaa la mbir mënut a sosu 23 ans ci ay tapale ci Sëñ Tuubaa mënut a nekk Sëñ Tuubaa moom mën ngaa neex baat dajaloo ak yëpp waaye sir baatin bi nga xam moo yëngal ku am pas-pas moom Sëñ Tuubaa ko ciy def def na ko ci nag waaye yaakaar na ni ah, ah, am na ci ne bi nga xamante ni nag commission yi ñu ngi daje ñu ñuy commission ni commission yëpp war a daje daje propose suñu proposition ndax njàng mi am na lu ci xam muy côté bii di côté bale bi ñu jàppee ni suñu commission bu ñu dojee dañuy indi ay proposition ba départ ñëw Touba dañoo ñëw fekk fay orientation yoo xam ne dana wax jëwriñ nii la ko bëggee ñu leen lan la ñu ne ñi nekk Touba 14 dafa nekk dañuy dem dugg kuréel Abdoulaye Diop ñi nekk dakaar dañuy dugg kuréel Cheikhouna Diagne ñu Touba dañuy dugg kuréel Cheikhouna Diagne ñun tamit gisuñu woon noonu ndax loolu bu amee tas day am te sëñ bi dafa boole dafa war a gën a bëri doole te kuréel yëpp woon naa dem di jàng day gën a yokk. di gën a doon mbégum murid yi di gën doon mbégum yuusu ndax lépp ci njiitam lay doon ñu ni ko ñun ñu ni leen man réunion boobu waxuma ndax man jàppoon naa ni sëñ yuusu du wax foofu ba noppi jóg may wax saaf safaan man jàppoon naa loolu personnellement donte moo naa ko sama xalaat bi ñu demee Dakar tam boole ñoom ñam daam jóg ñi ñu ñëw ñu wax leen ñun li ñu yëg nii leen